di leen sargal yéen leen yónni te di leen sargal ni nañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi ni di leen sargal ni nañ leen yónni te di leen

salaamaaleykum bonsoir réew mi FM ak euh, auditeurs Rewmi TV dal leen a jàmm seen émission espace jeune euh, tey nag ñu indi leen spécial 8 euh, mars ñu jéggalu un peu ci retard bi débordement bu am depuis ce matin moo empiété ci émission bi donc ñu ngi ciy jéb jéggalu képp kuy téléspectateur ak auditeur ba ci internaute Rewmi FM Rewmi TV ak réew mi officiel tey nag ñu dalal Elisabeth Diordian Euh, cosmétologue fondatrice de la marque Eno Beauty euh, Cosmétique Anne-Catherine John moom tamit fii ci plateau bi ingénieur de formation entrepreneuse dans le domaine de la mode le CEO de la marque euh, Glowax ak bige Bob président de l'association sénégalaise de la critique cinématographique moo nekk itam rédactrice en chef du quotidien Enquête ñoom ñu ngi ci plateau bi balaa ñu leen di dalal sama co-animatrice bi ngi fii Awa Ba Awa ma bàyyi la nga nuyu. Euh, auditeurs yeeg euh, téléspectateurs yi. alors maa ngi lay fay euh, Sylvie di nuyu nos très chers invités tey moom wane nañ ne jigéen ñi ñoo ay vraiment. Mm-hmm. ma faa <laughs> tey moom benn góor du ñu rax. tey jigéen ñi dong ñoo ay donc di mm-hmm. nuyu également les téléspectateurs de Rewmi TV sans oublier nos auditeurs de Rewmi FM. Mm-hmm. donc thème bu ñuy waxtaanee tey pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes gis nañ tey internet bi ni mu yaatoo ñëpp di ko utiliser ndax nekk na moyen boo xam ne euh, mun nañ fa am égalité entre góor ak jigéen. Mhm. alors dañuy tàmbali d'abord euh, bien sûr pour xam tout simplement ku ci nekk ci ñoom mhm. euh, passion bi nga xamante ne moo ko animé ba mu dugg ci métier bi mu nekk dañuy tàmbali ak Bigué Bob mi nga xamante ne et nu bien fraîchement de Ouagadougou donc euh, on va tout simplement parler également du cinéma mais xam également lan moo la gën a motiver ci nga dugg ci wàllum culture mais spécialement ci cinéma hmm. alors là. Mm-hmm. et je pense aussi loin que je me souvienne mooy métier bi nga xam ne moom laa bëggoon def bi may nekk xale d'ailleurs dama ko bëggoon ba sama papa benn karaoké la ma mayoon avec un micro. Mm-hmm. E, dama doon sonal ñëpp ci ci ci kër gi donc après le bac aussi déjà bi may def terminale laa njëkk a def uh, um, concours d'entrée CESTI c'est-à-dire uh, sous le bac. Mm-hmm. et euh, jàlluma woon. après bi ma jàllee bi ma amee bac ma def formation payante. def euh, commencé après quelques années ma delluwaat CESTI et tout donc aussi loin que je me souvienne loolu laa bëggoon def après la passion de la culture dafa commencé peut-être ci musique dafa commencé ciné bi may nekk xale euh, sama papa chaque dimanche da daan teg folklore séeréer da daan teg xalam da daan teg Souleymane fay hmm. donc ma màgg ak musique boobu malheureusement j'ai perdu très tôt mon père mais sama frère dafa jël rele bi mais moom hip hop la daan déglu ce qui fait bi may ñëw rédaction mm, peut-être foofu laa gënoon am facilité euh, pour bind parce que dafa doonoon culture boo xam ne màgg naa ak moom mm. découvrir naa ko xam naa ko euh, donc te dama yegg ci ñu bàyyi ma ak benn liberté mm. ce qui fait li ma neex laa doon bind mais dama bind hip hop ba ñu woo ma ne ma <laughs> ça donc nat c'est naturellement musique dem euh, waaw après nag naturellement en fait cinéma dafa bokk ci ci kii yi nga xam ne moom moo gën a. aar bi nga xam ne bokk na ci aar yi gën a complet mhm. parce que ci cinéma da nga fi fekk musique da nga fi fekk mode mhm. euh, da nga fay fekk conte da nga fay fekk euh, je sais pas moi dans le cinéma donc on y retrouve tout c'est vraiment l'un des arts les plus complets mhm. euh, peut-être après nooy gën di màggee muy gën di am yoo xam ne da nga koy kii parce que école kenn du la jàngal nan ngay bindee ci culture kenn du la jàngal nooy bindee ci cinéma mais peut-être ni ngay gën di màggee ngay am yoo xam ne di nga gën di orienté ci ci ñoom Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la tête de l'Association sénégalaise des critiques de cinéma. D'accord. Euh, yaa ngi jógee euh, je pense que aéroport nga jógee Gadiafi euh, est-ce que distinction yi bëri na du côté des femmes. waaw mais il est malheureux que pour une première fois ñu am je pense cinq femmes yoo xam ne dañoo nekkoon en lice pour l'étalon d'or de Yenenga et que amul kenn si ñoom ku ko gagné. il est malheureux que depuis que. FESPACO am on est à la vingt huitième édition il y jamais eu de femme qui a gagné le grand prix mhm. euh, mais au moins sur le podium cette année il y a deux femmes et un homme après l'homme est sur la plus haute marche mais voilà au moins sore wattuñu <laughs> vraiment la première marche a, il y a mhm. deux femmes et qui ont fait de magnifiques films mhm. vraiment Euh, voilà pour les prix spéciaux femmes yi moom wuñ fa dara. Mhm. les prix spéciaux vraiment mais pour la compétition officielle mhm. aussi. elles ne sont pas euh, en rade parce que am nañu ay ay prix yu bëri et que euh, voilà. en venir parce que gis nañ quand euh, ku ñu représenté en tant que femme di Ngisali Barry nga xamante ne moo joué rôle Awa sama trondo donc mu jël euh, prix meilleur on va dire jeune comédienne ci film bi nga xamante ne mooy Moussa Sène Absa di xale également. je pense que wane na ne euh, cinéma tamit jigéen am na ci importance bu rëy. effectivement am na ci am na ci importance bu baax a baax euh, elle a gagné le prix Yomowa de la de la plus jeune comédienne euh, ce qui est très bien. Euh, et que dañuy gis aussi que nu ñuy gën de demee jigéen ñi dañu gën di évoluer ci cinéma. fii nii euh, que Dieu ait pitié de son âme Safi Faye lañ fi amoon. décédé na veille yu Fespaco yal na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana mhm. mais tey de Safi Faye à à jour. Euh, comédienne yi en fait réalisatrice yi dañu gën a bëri avant boo demoon ci plateau yi cinéma les femmes étaient soit des scénaristes soit des maquilleuses euh, en fait les seconds rôles il est difficile par exemple nga gisoon benn femmes chef op chef opérateur euh, technicienne yi affaire yooyu mais de plus en plus tey ñi ngi jëm vers foofu on a plus de femmes réalisatrices les femmes ne font plus qu'écrire parce que foofu lañu leen doon bàyyi donc am na benn évolution boo xam ne mi ngi am te évolution bu positive la on peut dire mmh. d'accord Bigué yow yaay euh, rédactrice en chef euh, du du quotidien enquête excusez-moi suñu métier bi metti na rawatina nga nekk head chef ci benn rédaction ku ne xam na pression bu ci nekk et tout ce qui est derrière noo ko duddee euh, ci seen rédaction enquête. Moi, je dis tout le temps que euh, quand on pose cette question-là, je ne sais pas trop quoi répondre. Parce que je n'ai pas senti vraiment problème ma am Peut-être mm-hmm. aussi que euh, ça m'a vécu, euh, ma moo tax peut-être, je n'ai pas eu beaucoup de mm-hmm. Tout le monde me dit il est très difficile, de presse écrite, après, nga am yenn poste de responsabilité yi nii mais peut-être man dama jàngee euh, lycée di laa jàngee fa defee sama euh, sama cycle yëpp. Mhm. ce qui a fait peut-être que euh, j'ai tardivement pris conscience de différence entre góor ak jigéen benn mag bu góor laa am il n'a pas grandi avec nous il était au Britannique donc j'étais tout le temps entre femmes ce qui fait que sentiruma bu baax toutes ces inégalités là. et que en arrivant à la rédaction je ne me voyais pas comme femme réduite à femme je me mm-hmm. voyais comme une personne mm-hmm. comme un reporter mm-hmm. au même titre gisuma woon comme un journaliste gisuma woon lu góor mën te te man mënuma ko doonuma woon tegal sama bopp ay limites parce que voilà euh, sentiruma woon yooyu noonu maintenant nag de plus en plus ngay dem am fenn fooy dem dégg ñu lay wax yenn man je n'arrivais même pas à décrypter <laughs> mhm. pire mhm. yenn message yi nga xam ne rédaction daan mhm. nañ ma ko def je n'arrivais pas à les décrypter am na góor yoo xam ne plus jigéen yu lay jiite mais mais ah, plus tard laay laay laay découvrir yenn yi par exemple quand je me suis mariée des gens ont commencé à me dire euh, yow de jigéen bu bon na parce que dama doon guddee rédaction parce que ku xam presse xam ne dafa ànd ak guddee mais moi je rigolais en leur disant eh ouais sama jëkkër du jigéen bu bon la takk mais man la nopp en fait je ne voyais pas de mal derrière mm-hmm. et c' est maintenant que je me rends compte peut être c' une force mentale parce que am na jigéen yoo xam ne à force ñu leen di wax loolu elle mm-hmm. commence à descendre tôt mm-hmm. à ne plus vouloir à ne plus vouloir rester là jusqu'à certaines heures te boo nekkee presse écrite bu fekkee que da nga bëgg a am poste de responsabilité il faut que nga xam que ne da ngay guddee mais su fekkee ne yow da ngay nekk ci rédaction bi weeru koor nga ne 17 heures du la fi fekk parce que da war a dem defal sa jëkkër ndogg kenn du la mën a def chef de desk. Mm-hmm. parce que mënuloo 17 heures amul page bu ñuy boucler. Mm-hmm. c'est pas possible. alors mais comment faire également parce que tamit c'est pas évident d'allier le milieu professionnel ak tamit kër ga ndax euh, jigéen mooy yor kër et on fait un petit coucou à la petite fii qui qui qui nous attend là-bas à la maison donc nga yor doom tamit yor njaboot et tout ça nga war a nekk ci presse écrite ku nekk xam na presse écrite nu muy demee dañuy guddee bokkul ak rajo wala télé ak yooyu. parfois balaa sax ñuy paree day fekk guddi jot na nga war a ñibbi ñu lay xaar à la maison également comment pour allier ces ces ces alors euh, man dama tudd dama màgg ak euh, sama pap la a gaañu ma gis sama yaay sama yaay <laughs> mosul tardé école sama yaay enseignante la woon. Hmm. donc man xaw ma lu dul liggéey en fait ce qui fait que le travail passe avant chez moi le passe avant tout beneen bi mooy j'ai eu la chance. ku nekk ak say priorités ak say priorités j'ai eu la chance d'avoir un mari boo xam ne il a compris les choses il a beaucoup plus de temps que moi parce que il est pharmacien. Hmm. ce qu'il fait man bi ma ëmbee toutes mes visites je les ai faites avec mon mari sama doom bu mu juddoo euh, sama jëkkër moo ko yóbbu pour ses Euh, instant bi école bi moom la ñu gën a xam que parce que c'est lui qui gère les inscriptions c'est lui qui va aux réunions de compréhension exactement euh, franchement de ce côté-là waaw <laughs> y'en a y'en a y'en beaucoup surtout en presse parce qu'il est arrivé des jours où je suis sortie de la maison à 10 heures et je suis rentrée à 5 heures du matin. alors là c'est pas évident. c'est pas évident je voyais euh, à bu ñu yeboon nañ muñu rek. parce que je voyais à peine moo mm. mon truc mon ma fille. Mm. mais voilà c'est pas très facile mais c'est faisable. Mm. c'est faisable tant aussi ñu bañ di tekk yenn yi jigéen yi parce que boo amee jëkkër li ñu lay wax mooy. am na ngénte yi ci belle famille il faut ñu comprendre que booy liggéey mënoo dem ngénte wala mariage ay jeudi wala wala wala lundi il faut aussi que les femmes non il faut que les femmes tamit ñu accepter que ñu mere leen ci loolu ah, bul nangu ku la mere ci li nga xam ne mooy sa dëgg yow mm-hmm. xam nga moi par exemple en tant que rédactrice en chef je ne conçois pas qu'une femme vienne me dire mardi mënuma ñëw parce que sama kër belle famille dafa am ngénte mm-hmm. non je ne conçois man mënuma mënuma joxe permission ci loolu parce que man sama doom dama ko daan yóbbu vaccination sax teg ko liggéey si. parce que on a toute une journée soo liggéey suba mën nga liggéey ngoon c' est question d' organisation ak question de lan nga bëgg. Mm-hmm. il faut se donner les moyens de sa politique. Mm-hmm. góor ñi du ñu tàggoo pour dem ngénte. il faut mm-hmm. la dire du ñu tàggoo pour dem mariage. ñoom bu ñuy dem ngénte dañuy xëy suba teel ñu tudd doom bi ku si nekk mu dem liggéey mhm. ñun nag ñun ñoo fay des di waxtaan di kaa voilà <laughs> quoi c'est c'est malheureux mais c'est ça. jigéen ñooy sonn kon nag dañuy muñalante ah defe naa ne am na solo Anne Catherine dañuy ñëw ci yow rek ci wàllu mode bi également. Mhm. alors euh, passion boobu nan la dundee ci yow nan la màggee ci yow également lan moo la ci dugal exactement. nuyu mm-hmm. nuyoo mm-hmm. donc euh, je réponds le nom de Anne-Catherine John mm-hmm. de formation je suis ingénieure en électricité d'accord donc euh, mode bi ça vient un peu avant ma formation de base mm -hmm. euh, donc j'ai entrepris au niveau de la mode parce que c'est une passion qui m'anime donc li nga xam te dama ko yàgg bëgg la. feet day jot sax ñëpp am yére mu des man. Ah. ndax damay des tailleur bëgg a toog <laughs> bëgg muy ñëw may gis. bañ ay affaire erreur wala ay. Euh, defoo yére parce que mm. couture dafa am yoon quoi te tailleur yi des fois nga bàyyi leen ñu def du n'importe quoi si sa yére dal na ma parce que loolu ma gën a animé sama dugg ci mm-hmm. euh, fête jot na ma war a dem mes yére bi pareegul ma dem ma fajaru <laughs> dem si tailleur bi fekk tailleur bi laalagul yére bi donc j'ai obligé obligée toog xaar ba mu dagg ñaw heureusement je suis partie à la messe du soir mhm. xaar mu dagg ñaw yére bi ba ma essayé ba mu jot ma mun a dem mhm. je me suis que pourquoi ne pas euh, ma dugg ci jéem a comprendre pourquoi déjà ñoom euh, mhm. ñuy jël des fois ay commande jàmm sans pour autant assumer parce que am na ay réalité aussi ah des fois da ngay bëgg di ñawoon ñëpp mais du ma nekk parce que y a des contraintes puisque main d'œuvre manuelle la du li nga xamante machine moo koy def nit a koy def des la passion euh, li nga bëgg def mhm. dalay animer mais mhm. après sa loxo ça suit pas la main d'œuvre mhm. ne suit pas. donc euh, je me suis dit que je vais me lancer jéem a comprendre déjà comment ça se passe au niveau de la mode. d'autant plus que ça m'anime et je m'y vois vraiment. donc euh, boo bëggee dara investir lu si rek après coono bi ñuy wax. Euh, du du lu ñuy doon li nga xamante ne dañ la koy nettali mais li ngay dund lay nekk. voilà donc entrepreneuriat dafa ànd ak lu bëri. man bon dinaa ko tënk ci quatre points déjà. Euh, l'entrepreneuriat moi je le décortique comme entre et prendre entre maanaam nga dugg ci dara. Mhm. Euh, nga dugg ci benn domaine d'activité bi nga xamante ne gis nga sa bopp on te force pas on ne force pas une personne à entreprendre. Mhm. c'est un truc volontaire. Mhm. donc euh, prendre tu dois avoir une possession de cette activité. puisque yaa si dugal sa bopp de façon très libre volontairement. waroo toog ñu lay pousse sax pour ne la ah, defal lii yaa ngi entreprendre donc dugal def lii wala jéemal innover à de tel ou tel C'est mhm. une passion qui t'anime. Mhm. C'est toi qui dois donner une vie mhm. à, à ce métier. C'est toi qui dois donner une, euh, une plus-value à ce corps de métier. Donc, euh, premièrement, il faut qu'il qu y ait de la volonté, comme je dis, du désir de vouloir entreprendre. Ensuite, il faut qu'il y ait de la persévérance. Ku xam mode comme comme je l'ai évoqué euh, dafa laaj dal tey. parce que tailleur yi am nañ li nga xamante ne c' est euh, c' est propre à eux c' est un global da gis nit ku di xaar yéen bay jooy. <laughs> parce que feet jot na. Mhm. bor na solu mënul solu. waaw <laughs> doo ko sax sol. doo ko sol na xol bu jeex. Mhm. donc il faut nga boo ciy dugg yow mi nga xamante ne yaa bëgg entreprendre ci loolu il faut nga ànd ak dal. Mhm. tey client bu ñëwee sax teg la pression. yaa war a xam nooy dalalee nekk intermédiaire. entre tailleur bi kay ñëw ak cliente bi. yaa war a am leadership bu tax ngay manager les les deux volets. parce que c' est carrément opposé tey bi xaalisam la indi. bëgg nga ñawal ko yére xamul li ngay daj ci tailleur bi que tailleur bi ñaw ñawul aay na aayul et tout c' est de gérer. parce que yaa dugg ci loolu. donc il va de la persévérance et de la patience. donc en troisièmement il faut de l'innovation et de la diversité. si si pour se démarquer. parce que marché bi dafa concurrence bi dafa bëri. <laughs> dafa bëri donc mënoo di monotone. tu pas te permettre de faire. comme ce que tout le monde fait. Hmm. il faut que tu ah, puisses amener macha allah tu t'es tu t'es démarqué <laughs> blague à merci beaucoup xolum rek. ah dañuy góorgóorlu <laughs> yàgguñu ci marché bi dañuy góor góorlu rek. Hmm. donc il faut de l'innovation et euh, de la diversité. tey par exemple war nga mën a jël benn tissu par exemple le wax euh, nga am benn wax mu ngi ciy def par exemple dix modèles. il faut que tu sois diversifié a jël benn tissu forcé ko par exemple un seul modèle mhm. mën nga mun jël pagne tissé tey travailler ko ci costume normal un costume prêt à porter nga nga customiser ko mhm. nit ki mën ko sol gis ci boppam mhm. c'est notre tissu à nous c'est c'est nous est propre en fait c'est africain donc a bu mel nii bu ko defee ma koy awalu bu dàkk lii sax laay defar <laughs> beneen beneen robe bu mel nii bu dàkk bi laa lay defar bët à ah. <laughs> moom moom yooyu rek lay sol ko baadu les gens reviennent à, au mhm. panafricanisme. Mhm. donc ñu ngi jéem a utiliser ce qui nous est propre ce qui mhm. nous est vraiment africain quoi notre tissu l'épargne et tout voilà et finir par le financement. parce que je vois que y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que dañu naan financement c'est une raison. Mm-hmm. c'est pas mais raison c'est un problème mais lu tax ma wax par exemple j'ai commencé sans pour autant avoir un financement. Mm-hmm. je suis presque à trois ans. Mm-hmm. sans pour autant recevoir un financement. et pourtant je fais de mon mieux. et pourtant je suis donc avec l'argent de la bourse. Euh, donc bi may doog a dugg ESP je suis à l'ESP j'étais à l'ESP bi may doog a dugg j'avais une bourse de 20 000 francs demi bourse laa amoon donc xaalis bi daan na utiliser même si je restais au campus comme ñëpp laa doon def ah, dem nekk euh, au niveau des cantines voilà am carte yi ñu jaay et tout je je je fais comme tout le monde je me je me je me damay dugg ci masse bi quoi du ma mm. démarqué wu bëgg a dem forcément ay resto di di jéem dund li nga xamante ne dafa da lay lekkloo sa mm-hmm. euh, l'initiative de conserver cet argent. Oui, aussi c'est des risques. c'est beaucoup de risques par exemple nga deux ans parce que ça m'a pris deux ans jël deux ans bourse denc ko euh, dugal ko si li nga xamante ne xamoon na réussir c'est mm-hmm. vraiment un risque à part entière. Mm-hmm. donc euh, loolu moo tax ma ne mënoo mënoo le fait que ni. entreprendre parce que amoo financement. Mhm. c'est pas une raison parce que on peut pas financer tout le monde. c'est à mhm. toi de te démarquer. Mhm. def lu tax tey euh, kenn gis la na ah de mu ngi avancé naw naa ko ci li muy def dinaa ko jàppale. yow yaay mais mënoo toog xaar ah, il faut ñu il je vois pour ma commencer. non <laughs> je suis pas d'accord par rapport à ce propos. donc quatre volets yi ma énuméré là ce sont je me dis les quatre parce que da gis ku dugg euh, laajtewul wala toppandoo dugal ko ci surtout mm-hmm. man bëri na nit yi yu ngi dugg on n'exclut personne parce que yaatu na mhm. on peut faire plaisir à tout le monde il a mhm. vraiment une masse <laughs> à satisfaire donc je me dis que ñëpp xaj nañ ci ñëpp mën nañ ko duggu mais que le le désir t'anime mhm. que mu dëggu quand même parce que tey mën nga génnee collection du jaar <laughs> mais doo blâmer kenn mën nga génnee dara jaay à perte parce que moi j'ai commencé à vendre à à des prix très bas pour ceux qui ont vu mes premiers produits très bas je vendais à mais je me suis pas que c'est un il faut gagner déjà en clientèle en fait c'est une stratégie <laughs> non yokkuma jamono bi li fa yokk jamono d'accord mais vous êtes dans la mode est-ce que ça <laughs> vous arrive également de participer euh, dans les défilés par exemple pour promouvoir également mhm. euh, vos tenues on va dire parce qu'il y a également par exemple le festival international de la mode de Dakar FIMODAC mhm. en général il y a des jeunes qui passent parce mhm. que loolu day bokk tamit ci li nga xamante ne mooay fësal li ngeen di liggéey mu jëm robe ya yeneen ak yeneen mi ngi am actuellement monument. voilà donc est-ce que ça vous arrive euh, de participer ci genre défilé yooyu noonu. pas encore parce que je me suis dit que pour dem défiler il faut nga asseoir déjà une base. c'est pas une mhm. course en fait. Mhm. Euh, le temps est là. Mhm. Euh, les créations ne, finiront pas. donc en amont il va falloir tey yow nga xam loo bëgg xam fooy jëm. xam li nga xamante ne li nga soxla hmm. jëm ko asseoir tu gagnes en clientèle parce que hmm. tey booy défilé bëgg a woote nit ñëwal la hmm. dafa falloir nga am clientèle bu lay ñëwal donc tey il faut nga asseoir une certaine base au niveau notoriété ñu xàmmee la ràññee la après tu peux lancer parce que affaire chaque chaque année day am nag buñ ne nag ràññee bu démarré léegi na commencé yàgg non si si j'ai eu défiler une fois pour euh, saveur exotique dafa ah, defal benn dîner mais vous allez voir qu'en retour, euh, si, si, visibilité il y a une visibilité derrière. Mhm, mhm. vous solliciter mhm. pour mën a xam seen liggéey nan lay demee. ñeneen dinañ mën a def des commandes ah, également. te loolu mooy permettre. mais bien sûr ma sama bopp laay waxal nii. ah mu ngi defoon kaaw tool sama bopp damay waajal sama bopp après bu ko defee nga bàyyi sa numéro. ma woo la nga may mën di solo ah, les les émissions et tout mais en général pour dire euh, honnêtement. participer dans des défilés ça a am contacts et tout ça. Et mm -hmm. ça va permettre d'évoluer euh, le travail en si, quelque effectivement, que ce soit défilé, que ce soit foire, visibilité de lay yokkal ça tout simplement les contacts. Exactement. sa carnet d'adresse lay yokk parce que mhm. même bu fekkee dem nga te nit yi jënduñu mais après tour bi day des quoi. Mhm. après nit yi xamoo tour bi fu muy law fu mhm. donc il a tout le temps des retombées positives par rapport à ça. d'accord euh, mais Anne sànq yaa ngi koy junj. Euh, lu nga choisir mo kese ngay travail. d' accord lu tax euh, Bon, le nom de Glowak, je vais commencer par ça. Mhm. Euh, bon, on peut décortiquer ça en deux mots. Le glow, le fun, être on flic, euh, être in, quoi. Mhm. maintenant, le wax, parce que le wax m'a vu naître. Mhm. maman, elle est Donc, on a grandi envers le pain. Nous, <laughs> c'est ma yaye comme maman. Euh, kii lañu euh, anango la ñuy sol. non dañu woddu la. Euh, ah béninois la voilà. wax la ñu xam donc on connaît le pagne à la maison. donc j'ai commencé par utiliser ce pagne pour promouvoir déjà. Euh, mettre ko en valeur en fait parce que damay dégg ñu naan vax mënoo ko yóbbu ci xew wala vax dafa simple mais mm-hmm. il faut savoir que vax par par qualité la. Mm-hmm. tey vax mën na jar 3000 4000 comme vax mën na gën a cher sax benn yére boo jël Euh, ñaw ko ba mu jeex ba par exemple mën na gën a cher mën na gën a moins cher que wax. wax mën dem ba cent mille francs wax hollandais parce que boo xoolee euh, les béninois ñag yi désolé du terme ci seen dëkk moom la ñuy sos seen mariage yi donc c' un c' très riche. très mhm. noble mhm. donc pour balayer toutes les. Euh, niveau social tey bëgguñu tey nit bu ñëw gu la wax naan euh, lii laa am comme budget man maa solu ci yow. Mhm. nit ki loo ak sa doole foo munti yemoo ah, comme vax du plus petit au plus grand ku gën a ku am budget bu faible comme budget bu soutenu bu ñëwee war nañ ko mun defar donc loo wax aussi relate cela cette pluralité au niveau de des différentes tranches qu'on peut toucher mhm. à travers ce tissu africain qui nous est propre. Mhm. D'accord euh, Euh, vous êtes ingénieur en électricité. Mhm. di euh, domaine boo xam ne c'est dominé par les hommes. effectivement voilà xam nga li may wax. Mhm. Euh, noo dundee métier bi fi nga liggéeyee ak nooy def aussi pour allier les deux parce que je pense que yombul. yombul yombul c'est une affirmation <laughs> vraiment mhm. yombul mais euh, bon euh, le domaine de l'ingénierie euh, domaine bu xaw a métti la à part entière parce que science moo mel dafa xaw a sis on va dire mënoo ko booleeg dara tey boo xoolee ñu nekk ci domaine ingénierie il y a tout le temps des recherches à faire que ce soit informatique que ce soit au niveau de Euh, de la biologie, la science avance. La mm -hmm. science, elle est vraiment véridique. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Donc, c'est pas un truc où vous exprimer ou mhm. en tâtonnant. Mhm. C'est une science très exacte. Mhm. Donc, euh, j'ai fait une formation en génie électrique. Je suis sortie l'année dernière à l'ESP de Dakar. Mais ça ne pas d'entreprendre. parce que moi, j'ai commencé à entreprendre, fait gain mon ESP. Je suis en troisième année, mais je entreprendre. C'était ma première année tey maa ngi liggéey certes maa ngi allier les deux c'est compliqué parce que tailleur déjà comme je le dis à part entière pour ñu defal li nga bëgg des fois il faut nga toog de superviser. Mm-hmm. je le fais la plupart du temps les week-ends et je travaille en temps plein au niveau d'un dépôt d'hydrocarbures de la place. Mm-hmm. donc je travaille à temps plein de 8 heures à 17 heures. Mm-hmm. donc euh, heure yooyu noonu da leen leen mënoo si def dara tu es handicapé par le travail et il faut respecter ses engagements parce que liggéey la mhm. tey mënoo dugg ci entreprise nga def say euh, demande déposer say CV ñu jël la mhm. après nga bëgga a la liggéey bi pour après naan liggéey amul mhm. donc euh, on le fait à part entière on le fait correctement et de façon noble c'est une science qui avance mais en parallèle euh, on est en train aussi euh, de trouver des moyens des alternatives pour asseoir les choses yi nga xamante ne euh, du empêcher entrepreneuriat parce que di entreprendre di prendre des risques prendre des initiatives donc je me dis que volonté rek la laaj. Mhm. volonté la désir la laaj. tey boo bëggee dara coono bi da lay wàcc. duñ leen siis foofu rek. ah parce que am na <laughs> yenn domaine yoo xam ne jigéen bu ci duggee dañ bët naan kii xaw <laughs> ah bon fi ma nekk en tout cas non non. Euh, ce sont des gens vraiment accueillants je suis la seule femme au niveau de parti boobu déjà. mais euh, taxul taxul ñu tuuti ma si. Mhm. Euh, wala ñu may euh, xeeb wala. déjà maa fa gën a tuuti xeebuñu ma si tuuti lu ñu ma si vraiment euh, wàccewuñu ma tamit xeebuñu sama sama connaissance mhm. dama siy jàng tamit parce que mhm. ñu ma mag laa fa fekk euh, expérience du day mhm. maa ngi doog a dugg ci milieu bi mais warul tax tey may ñëw euh, di leen jaay nii jóge naa école wala am naa telle compétence di jéem a voilà di rëy ci kenn kaw a fait milieu boo nekkee ci milieu bi nga xamante ne dafa bëri góor góor comme jigéen wala milieu bu bees milieu boo nga rabaissé wu jàng il y a tout le temps alors donc euh, <laughs> bien sûr dañuy ñëw rek ci Elisabeth Georgia n'est-ce pas donc yaa ngi ci milieu cosmétique bi on parle de digital donc je pense que à travers la digitalisation également dina leen permettre yéen ngeen mën a fësal aussi seen produit mais avant ça nga ñëw ci li nga xamante ne moo la poussé ba nga dugg ci milieu cosmétique bien sûr alors tout tout d'abord damay nuyoo euh, di nuyu suñu brave dame yi ñëw fii tey mm. di souhaiter aussi bonne fête de la femme à tout le monde di nuyu aussi ñu ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu. Mhm. alors man maa ngi tudd Elisabeth Diordien nekk di entreprendre ci cosmétique euh, di def cosmétique naturelle. Mhm. mu doon passion ci man mu doon loo xam ne li ma ciy dugal doon na passion en même temps doonoon na ay problème de peau yoo xam ne tout le temps dama ko doon tàmm di am. voilà loolu moo tax ma dugg ci cosmétique bi. Mhm. en même temps aussi. Euh, en même temps aussi euh, li ma li ma dugal ci cosmétique bi doon na doon na passion ak. Euh, euh, <laughs> donc mën nañ ko ko baal tey bésu jigéen ñi la moom. voilà donc lu ñu neex mën nañ ko def ci plateau bi l' essentiel est que. bien sûr ku nekk wax ça va passer ñu un yow li ngay produit yi ngay def yaa koy jaay yaa koy defar du moins wala c'est des produits yoo xam ne da koy importer. voilà alors euh, tout d'abord produit yu may defar euh, yu may jaay man maa koy defar. Mhm. voilà tout d'abord man formulatrice la mhm. Mhm. Euh, def naa euh, def na suivre na formation en cosmétique. je suis formulatrice de produit cosmétiques en même temps je suis maîtresse savonnière. voilà am naa diplôme en saponification. voilà loolu loo loolu doon na passion cosmétique doon na passion ci man. passion boo xam ne dama ko bëgg ak problème de peau yu mu doon tàmm di am tout le temps loolu moo ma dugal ci mm-hmm. cosmétique naturel. <laughs> ma est que est yaa ngi ciy gis tamit des effets euh, ci wala lu ñuy wax avantage par rapport ak produit yooyu noonu boo ko utiliser parce que am na ay produits yoo xam ne dañ koy utiliser ba pare. Euh, waaw mooy loolu donc. bien sûr est-ce que yow sa produit euh, réellement yaa ngi ciy gis résultat. bien sûr maa ngi ciy gis résultat parce que doon na loo xam ne passion moo ñu moo ñu ci dugal ñu dem ba mu doon suñu profession. Euh, ñu ñu def ci formation ba nga xam ne actuellement suñuy produit dañuy respecter normes yi suivre formation professionnelle. Mm-hmm. ba nga xam ne suñuy produit ku koy utiliser di nga ci am satisfaction. Mm-hmm. voilà euh, di rappeler aussi ñu ñuy seetaan que ni sama marque bi Eno Beauty cosmétique la tudd. Mm-hmm. mu doon marque boo xam ne ñoo ngi yëngu ci produit cosmétique euh, yi nga xam ne day toppatoo karaw. les produits yi nga xam ne karaw lay toppatoo. Mhm. ñoo ngi def aussi ay produit yoo xam ne day toppatoo taan. Mhm. ay diw ay diw voilà ñoo ngi def ay diw ay crème ay euh, produits. Euh, euh, crème de visage yooyu yëpp karaw bi de ah. ñu gis résultat xaw ma karaw bi de man moom bëgg naa ci. voilà visage bi ñoo ngi ci ñoo ngi ci soin du teint bi. Mhm. peau bi ak karaw bi aussi. alors question bi ma posé sànq am na importance parce que ñoo dañoo nekk ci milieu boo xam ne milieu digital. voilà mënoo ci loo mënta entreprendre il faut que nga dugg ci côté digital bi. exactement voilà boo côté boobu noonu tamit aussi ci la ñuy jaayee suñuy produits. voilà boo xoolee ñoo ngi ci plateforme yépp boo xoolee ñoo ngi TikTok ñoo ngi Facebook ñoo ngi Instagram. surtout vente en ligne bi. voilà vente en ligne bi moom foo dem jigéen ñi ñëpp ay vente en ligne la ñuy def. produit yi <laughs> dafa dafa dafa doon loo xam ne actuellement. boo boo nekkee di entreprendre surtout ci milieu yi yëpp muy cosmétique muy milieu habillement bi wala mm-hmm. style bi yëpp il faut que nga dugg ci di kii bi ci digital bi parce que loolu mooy tax nit yi gën la xam mm-hmm. xam li ngay kii li ngay li ngay kii li ngay jaay ñu mën la ñu mën la contacter di jënd say produits mm-hmm. à travers digital bi voilà d' accord yow euh, domaine bi nga nekk bëri na ñoo xam ne dañuy jël ak sama genre di mélange rek man moom damay mélange rek man di diw. Euh, voilà concurrence bi aussi euh, bëri na yow naka ngay def pour nga pour nga démarquer wu. voilà démarca bu may def bu may def man mooy professionnel professionnel la mhm. dama jàng dama kii passion moomu ci dugal au début mais dama dem. ma ma ma xam ne lii nii pour ma continuer ci continuer ci il faut que ma def formation. Mm-hmm. ma def formation professionnelle. Mm-hmm. xam normes yi en cosmétique. Mm-hmm. mélange yi nga war a def dosage yi c'est très important moo tax damay lancer appel bëri na ñi nga xam ne actuellement ñoo ngi nekk di entreprendre ci cosmétique mais defuñu formation professionnelle et ça c'est très dangereux bu nekkee seen passion la bu nekkee dañ cee bëgg a doon professionnel foog ñu dem ñu formé wu. Hmm, ñu mën a xam ingrédients yi nu ñu koy mélanger merci dosage yi c'est très hmm. important. Hmm. ba nga xam ne yow produit bi boo ko joxee sa client bu ko utiliser. dina am satisfaction merci da ciy am satisfaction totale. lu ci am benn gàllankoor. parce que pour muy karaw muy deru boobu dafa doon loo xam ne c'est très sensible. ma ñëw ci karaw bi gis nañ léegi euh, femmes sénégalaises yi bàyyi nañ défrisage. waaw ñun ñëpp ay ñu ngi commencé di bëgg suñu karaw yi di ko toppatoo. et tout euh, yan produit nga moo gën a baax surtout huile yi léegi bëri na. ay huile de ricin ay euh, huile d'amande douce ay huile daal bëri na huile de serpent huile et tout yan produit ñoo gën a baax tey pour karaw. alors produit yi. a naka la ñuy def ba ba entretenir suñu karaw yi. alors voilà retour au naturel bi actuellement c'est tendance gars yi ñu ngi ciy ñëwaat. te c'est c'est vraiment dafa rafet dafa doon loo xam mhm. Mhm. dafa rafet. voilà nga am karaw naturel dafa c'est très joli. te euh, ñun euh, man mi nekk ci cosmétique bi aussi ci volet boobu noonu maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy defar ay produits am solo. Mhm. pour aider femmes yi nga xam ne dañoo bëgg di entretenir naturellement seen karaw. ñu koy toppatoo te duñ ci sonn. voilà loolu euh, nu mu tuddati produit produit yi ñu yu femmes yi war a mën a utiliser pour di toppatoo seen karaw mhm. na doon produit yoo xam ne yu naturel bu nekkee euh, produit bu naturel yi moo gën mhm. voilà boo xam ne bu bu koy utiliser ci karaw bi non seulement dina am satisfaction mhm. mais du am benn danger ci karawam wala ci deru pop bi voilà ci volet boobu aussi euh, ñoo ngi ci ñoo ngi ciy liggéey lu am solo ñoo ngi defar comme par exemple ñoo ngi am nañu gàmm boo xam ne gamme complète la boo xam ne day permettre euh, femme bu am karaw karaw nappi li nga mën a utiliser suñuy produit toppatoo sa karaw te mm. doo ci sonn mm. voilà gamme boobu boo xoolee am nañu shampoing solide boo xam ne moom ngay raxasee sa karaw loolu yëpp yaa koy defar voilà yooyu yëpp maa koy defar am nañu shampoing solide am nañ pommade traitement am nañu aussi les capillaire voilà parce que karaw nappi dafa soxla lait capillaire mm. lait capillaire mooy produit boo xam ne leave in lay doon maanaam boo ko defee sa karaw bi du jar nga rincé ko boo ko defee ci karaw bi automatiquement da ngay gis ne karaw nappi bi dafay nooy népp hmm. te doo ko rincé automatiquement da nga koy coiffé nu mu la neexee doo sonnu daal ci sa karaw nappi hmm. voilà ci volet boobu aussi ñoo ngi ciy liggéey lu am solo parce tamit suñu ci suñu kii la bokk ci suñu devise la bokk. Mm-hmm. la beauté naturellement éclatante. Mm-hmm. voilà toppatoo sa karaw naturellement toppatoo sa teint naturellement ak sa kanam naturellement aussi. Mm. d'accord donc ñi bëgg nappi nañu ci bàyyi xel bu baax a baax. mais est-ce que cosmétique également yéen a ngi ciy gis seen bopp. Mm-hmm. waa ñoo ngi ciy gis suñu bopp ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax euh, parce que métier la boo xam ne c'est très prometteur. boo ko boo ko boo koy liggéey teg ko ci euh, di ko def normalement. da nga gis résultat parce que marché bi c'est tellement vaste. Mhm. voilà marché bi dañoo soxla ay cosme ay ñuy jaay produits cosmétiques yu baax ci marché bi parce que marché bi c'est très vaste. Mhm. voilà di di profité ci journée bi aussi di inciter à ce que ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg ci métier bi ñu dugg ci mais dans les normes parce que marché bu vaste la. Mhm. d'accord. Euh, dañuy ñëw ci thème bi tey euh, le thème euh, qui a été retenu par ONU Femmes pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes euh, tey ñu ne euh, à côté dans le mhm. monde yaa y a 37 pour cent des femmes yoo xam ne elles n'ont pas accès aux réseaux sociaux elles n'ont pas accès à l'internet xamuñu sax naka lañ koy manipuler. Mhm. te pourtant tey euh, jigéen ñi bokk nañ ci nga xam ne ñoom ñooy développer le secteur économique surtout fi Sénégal ku ne mhm. xam na ni mu deme donc tey leen foog ne bu ñu dooleeloon jigéen yooyu tey ba ñu am accès ci internet. Euh, suñu économie mënul gën a dem bii gis yow lay commencé parce que bari na tey ñi nga xam ne ñu ngi def ay film yoo xam ne jaarul si benn télé mais mi ngi jaar ci ay YouTube ak yeneen plateforme euh, bari na du ma citer pour ne pas de publicité tey euh, naka nga jàpp ni tey nan lañu war a doole les femmes yi tey ñoom ñëpp ñu mën a am accès à l'internet pour mën a développer suñu économie alors je pense que déjà am na ay ay initiative yu ñu teg mhm. je pense pour ne pas citer am na benn opérateur télécom boo xam ne tous les ans am na mhm. am na benn concours digital pour les femmes entrepreneurs mhm. et c'est pour ñi nga xam ne vraiment am nañu ay idées innovantes et loo xam ne la mën na dimbali jigéen ñi ci économie ñu def ko je pense que ça c'est une belle initiative qui permet aux femmes vraiment ñu gën a am accès ci ci ci internet bi parce que sànq maa ngi xool benn article boo xam ne ce qu'on dit c'est que 85 pour cent des entreprises numériques au Sénégal sont dirigées par des hommes mm et qu'il y a pour cent qui sont dirigées par des femmes en mmh. termes de entreprises numériques mm -hmm. déjà loolu rekk problème la mm -hmm. ça c'est une étude de loolu rekk problème la mais il faut voir pourquoi les femmes n'ont pas accès à, au numérique <coughs> ban chance la leen may da ngay gis ne même dans le monde femmes yi nga xam ne dañu am vraiment dañuy diriger euh, de grosses entreprises kenn xamul leen qui connaît ici euh, CEO bu bu YouTube on n'en parle pas c'est une mm-hmm. femme et pourtant tout le monde connaît celui qui a créé aujourd'hui mm-hmm. euh, Facebook Facebook ñëpp xam nañ ko mm-hmm. qu'est-ce qu'il a de plus méritant que cette femme là mais son nom ñëpp xam nañ ko mais kan moo xam ki nekk ci ginnaaw YouTube tey IBM a été dirigé de à 2020 par une femme personne ne la connaît duñu leen donc ça c'est même pas un problème boo xam ne juste euh, africain ou sénégalais ou accès parce que aujourd'hui dans le monde tu peux pas dire par exemple mënuloo dem États-Unis nga ne femmes yooyu noonu amuñu accès à internet donc inégalité bi c'est au-delà de cela on met plus les hommes en avant qu'on ne met les femmes mm. et pourquoi ils le font parce que ba tey jii nii bu ñu yaakaar ne problème yi ñu am ni ci jigéen ak góor ñun kese la mm. Afrique rek nga koy fekk wala Sénégal rek nga koy fekk ailleurs aussi d'autres problème peut-être sous d'autres angles mais ñun ñëpp ñoo ko bokk tey nag Sénégal gis naa que ne euh, internet am na am na ay opportunité yu muy may jigéen yi dans le monde de médias bi nga xam ne ñun si la ñu ne hmm. beaucoup de femmes ont pu créer mettre en place des flat des plateformes dédiées aux femmes hmm. on a Warha TV hmm. ainsi que des sites des sites d'information c'est ça en fait il y a mise en place par une femme. Et c'est pour parler des problèmes de femmes. Il y a lescommerces.com ou .sn, je mm -hmm. ne mhm. sais plus. Mise en place aussi par deux journalistes femmes. Mhm. Donc, pour man plateforme yooyu noonu yëpp tey ñoom bu fekkee ne parce que dañu gis que ne traitement médiatique bi li ñuy jox femmes yi bëriwul. Mhm. Quand on parle des femmes dans les médias, c'est en termes de faits divers. Il faut vraiment que ñu def lu bon ñu rey leen. Euh, ñu ñu viole leen que ñu mettre ko la alors que par exemple quand une femme gagne un grand prix les médias n'en parlent pas te genre plateforme yooyu moom moo koy permettre mais genre plateforme yooyu tam moom mooy tax que ni problème mu jigéen ñi dañ koy waxtaanee ci angle bi gën pas angle bi nga xam ne moom la ñu société bi bëgg a gisee parce que généralement on convoque des plateaux on dit qu'on va parler de femme mais on fait plus le procès des femmes qu'on ne parle des problèmes des femmes hmm. et ça c'est hmm. donc tey internet moo may jigéen yooyu noonu ñu mën a jéem a changer la donne jéem a jox jigéen yi place bi nga xam ne moom moo war da ngay jël journal gis ñuy def benn analyse analyse bi mën nañu woo trois quatre experts yëpp ay experts la. Hmm. on parle pas aux expertes et pourtant elles ont leur place. mais hmm. tey avec des comme ça dédiées au femmes war nañ ci mën a war nañu gën a mën a développer euh, tey dans le cinéma par exemple je veux dire on va parler de série. Hmm. Il y a une maison de production dirigée par une femme, Kalistasi, mhm. euh, et qui fait de bonnes choses. De entre autres séries mhm. qu'elle a eu à produire ici Exactement. au Sénégal. Elle a produit mhm. euh, mais Taï, elle trace son chemin. Amna chaîne YouTube. Elle a la chance qu'une télévision puisse acheter cela. Euh, mais elle est en train de se battre comme elle peut. Mais je pense que c'est pas parce ah, que les à femmes am yenn problème yi. Les hommes dans le milieu de la production ont peut-être les les les les les mêmes problèmes. Mais le digital leur permet aujourd'hui de pouvoir gagner encore mm -hmm. sous. parce que tey boo amee chaîne YouTube boo xam ne c'est très bien suivi. am benn nombre de followers yi. YouTube dina la fay. nga mën a rentabiliser quelque part. xalaata mën a rentabiliser ce produit. parce que malheureusement il faut le dire nos télévisions n'achètent <laughs> vision n'achète pas. non ah, non c'est <laughs> donc ñoom tey loolu noonu la ñu mën a am ci mhm. ci internet bi donc il faut que ñun tamit derrière ñu jàppale leen. Mhm. Mhm. dem di leen follow. di seetaan di aimer vidéo yi pour que derrière qu'il puisse aussi gagner un peu d'argent mais suñu télé yi war nañu war a gën a mën a def effort di di jënd le contenu local ça va aider les les les artistes mais pour l'instant ils vont ils plus gagner sur les trucs il aussi opérateur télécom boo xam ne am na chaîne am ki aide de plus en plus les séries et tout euh, am plateformam am mais nga fay seetaan am na ñu bëri ñoo xam ne léegi dañuy dem ci moom parce que aussi voilà dina la permettre au moins sax nga am tuuti xaalis war a mën a defar sa produit am benn produit de qualité. Mhm. bëri na bëriwul je ne pas parce que je ne suis pas encore intéressée à la question et fait des mhm. faire des recherches pour mhm. savoir lan lay joxe mais au moins il y a cela et c'est sur a qu'on a cette Euh, je pense que ñu koy gën a nu ñu koy gën di demee war nañu mën a gañe fii ci Sénégal am na nit yoo xam ne kenn xalaatul woon ne war nañu mën a am ci internet dara mm-hmm. parce que jànguñu mais tey mm-hmm. ñu ngi jamb seeni saabu di ko jaay mm-hmm. baax na wala baaxul TikTok may na leen benn notoriété boo xam ne benn télé mënul leen ko woon a may elles ont su peut-être à un moment bien utiliser TikTok mais après fan lay dem c'est ça problème aussi peut parce que après waaw gis nañ que ne ay écart dina am mm-hmm. affaire yooyu mais au moins ça permet de plus en plus à des gens de pouvoir vendre leurs produits mm-hmm. et de se faire connaître combien mm-hmm. d'entre nous ont ont découvert des marques ici sur TikTok sur da ngay toog fii nii sax xam benn benn di suivre benn styliste boo xam ne Côte d'Ivoire la nekk parce que TikTok nga ko gis un de ces jours tu te poses là-bas wala moom war a ñëw dakaar jaay si nga dem jënd dinañ ko di gën di am le problème nag mooy femme bi nga xam ne tey mi ngi joof yor ou j'habite mhm. di jaay euh, defaraat dugubam am si ay produits yi war ko jaayaat mhm. boo demul joof doo ko am boo tollee Dakar doo xam que ne kooku am na ko parce que mhm. amul accès internet donc loolu noonu tamit c'est war nañu ko war a mën a kii mais ça si lii à la fracture numérique il faut que ñu ñu def si ay jéego gën ko defaraat gën a permettre nit yi ñu ñu ñu accéder si Euh, parce que internet maye na yoo xam ne nga jàng nga ñàkk jàng war nga si mën a mm-hmm. jaay et ça c'est déjà très war a mën a utiliser. du mm-hmm. a mën a mm-hmm. yaa ngi doon wax léegi vente en ligne et tout ça fan la koy defee fu dul ci TikTok yi. te foofu mooy tax ñu mën a promouvoir seen produit. te sànq bi nga koy wax les séries également ainsi que court métrage ak long métrage ñuy def mais dafay bëri. ñoo xamante ne exactement donc dafay bëri des jeunes réalisateurs des jeunes réalisatrices yoo xamante ne dañuy yor seen produit mais malheureusement. moom visibilité bi ci war tamit amuñu ko mooy li nga wax rek ci télé yéeg yooyu nga xamante ne ñoom ñoo war a également euh, assister ñi nga xamante ne ñooy réalisateurs yi waaye tamit jàppale leen ñu mën a fësal seen mais nga foog ne sensibilisation bi war tamit ce que am na ci surtout jigéen ñi nga xamante ne parfois ñu nekk ci région yeeg yooyu seen euh, seen visibilité bi ñu war ci wàllu mi tamit euh, internet est-ce que jaaduwul ñu sensibiliser leen ba nga xamante ne ñoom itam dinañ mën a xam lan la ñu mën a def wala fan la ñu war a mën a jaar Euh, pour fësal seen bopp yi tamit. en fait je pense que oui sensibilisation. parce que mm-hmm. loolu jarul sax ñuy dem milieu rural. parce que ñi nga xam ne ñi ngi nekk fii nii sax ñenn ci jaaykat yi nga xam ne ñi ngi utiliser internet xamuñu forcément c'est pas juste mettre du contenu. Mm-hmm. parce que boo ko jàngee di nga xam que ne par exemple yow tey bu fekkee ne da doon chargé de communication am na étude yoo xam ne da nga koy def. boo bu fekkee ne yaa ngi def ay publication sur Facebook il faut que nga intéressé wu loolu kañ la la sa public di gën a suivre mm-hmm. kañ la ñuy gën a xool ban heure la ba nga xam ne da ngay xam ba heure nga war a mën a posté pour mën a jaay yenn yi mm-hmm. xam ne moom derrière jaay rek la amul lenn loo xam ne mi ngi koy xool ci ginnaaw c'est pas beaucoup trop son problème man tey je am na yenn femmes yoo xam ne dañuy passé toute la journée sur TikTok à faire des lives je me je me demande que xam ne des fois dañuy sax jaawale sphère privée ak ak sphère publique bi en fait. Mm. parce que à tout moment ils sont exposés. Mm-hmm. dañuy wax ba nga xam ne des fois mm-hmm. li lay gañaloo clientèle. Mm-hmm. moo lay perdre loo clientèle. da ngay gis nekk ci friperie yi di jaay loolu moom moo nekk euh, revers bi. je pense que oui elle devrait te du ñoom rek. parce que am na ñoo xam ne jàng nañ sax te xamuñu bon usage internet lan la donc loolu noonu ñëpp ñoo ko war a jàng en réalité. internet lan la ñu mën a andil. par contre am na ñeneen ñoo xam ne tey li ñuy dégg ci internet rek mooy li nga xam ne moo bon li ñuy dégg ci réseaux mhm. sociaux yi mooy li nga xam ne moo bon mhm. euh, ba nga xam ne ñoom seen bopp dañu koy ragal donc soxla nañu éducation ñun ñooñu ñëpp dañu soxla mhm. vraiment c'est pas parce que danga am benn bac plus 5 ou que da doon cadre tel këf amuloo pour ñu éduquer la sur nan orienter la surtout internet tout le monde a besoin d'être éduqué sur l'utilisation des TIC parce que am na revers dafa am lu baax lu ci ne lu ñu war a mën a jël mais am na loo xam ne tamit voilà c'est mën na la mën na la yàqal. te loolu mooy def tey nga gis kenn ñu follow ko bu subaa ñëpp unfollow ko. Mhm. loolu moom moo fi am gis ngeen ni xew diggante si je ne me trompe euh, la sœur de des sœurs Kardashian là. Mhm. Euh, moom la famille Kardashian ak ak Selena Gomez. Mhm. sur internet elle s'est un peu. moqué de poids wam parce que kooku noonu fi mu toll nii dafa feebar di naan ay garab. wax na que ne dañu ko defaral benn pose ongle je pense et que baaxul. Kylie def benn live di ko ñaawal mais nit yi dañ ko unfollow mhm. dem di follow kële mhm. Selena pour jàppale ko et pourtant moom elle est businessman mhm. elle a une marque de cosmétique à vendre c'est pas bon pour elle surtout que ñoom ci seen dëkk yi ay Instagram euh, TikTok le nombre de followers dafa am important ci ñoom parce que aussi ça fi fait gagner des sous derrière non mais donc voilà donc de plus en plus da leen yooyu noonu ngay wax. Mm. donc mu nekk fii nekk feneen. Mm. voilà dafay dafay am effet nu mu la mën a indile ay nit. Mm. noonu la la mën a ñàkkloo ay nit donc on a besoin d'être éduqué sur l'utilisation des titres. d'accord ñu jàll ci enquête yi tey euh, tout à l'heure maa ngi ne 37 pour cent des femmes mm-hmm. euh, n'ont pas accès à l'internet tey euh, les pertes euh, côté économique c'est environ plus de 1000 milliards d'euros euh, te nee nañ d'ici mën na ko doubler. Euh, bu dee amul euh, si bu dee 37 pour cent yooyu jàppale wuñ leen. Euh, ñu am accès internet parce que tey internet bi gis nañ fi muy yóbbu jigéen ñi yow sa marque bi tey <laughs> tey bu ma la xamee mën naa ne c'est grâce aux réseaux sociaux donc nga partage ñu se ak sa ñun sa expérience réseaux sociaux yi fu mu la yóbbu d'accord bon déjà moi j'ai eu à commencer en plein Covid te ku wax Covid xam ni mobilité amul woon heure boobu hmm. donc les gens étaient chez eux heure boobu nga gis ñëpp inaugurer seen marque au niveau des réseaux. seul moyen parce que mënoo woon génn la la maladie était dehors da ngay ragal génn ñu contaminé la après c'était compliqué donc euh, tout était au niveau des réseaux tout le monde était interconnecté mën nga dugal benn story wala dugal benn contenu en moins d'une heure mais tu as vraiment des vues yi nga xamante ne doo ko xalaat en fait parce que tout le monde était scotché que ce soit cours que ce soit li nga waroon def yëpp ah mm. même fournisseurs yi di jënd soo paree yow nga jël statut hmm. ku bëgg mu commander livre dem jëli hmm. tu ne touches même pas à à au produit en tant que tel hmm. donc euh, période bi nga xamante ne beaucoup de personnes ont un essor tax na ñu bëri euh, démarqué wu parce que c'était un <laughs> flot bi dafa bëri woon ah parce que y a de beaucoup de personnes connectées nit yi tamit euh, gis nañ ci seen bopp bu baax man foofu laa commencé désolé keneen ak keneen tam foofu lañu commencé donc mën naa wax ni un point fort la pour samay début déjà après côté pour en venir au niveau du sujet la digitalisation inclusive. Mm -hmm. euh, moi je bon il y a une problématique qui se pose mhm. parce que euh, précurseur ou informatique je pense que ce sont des femmes. Mhm. jigéen ñoo commencé domaine boobu noonu tey bu ñu doxee ba ñu ñëwaat ci jamono boo xamante ne euh, ñu ngi ñaax jigéen ñi pour ñu delluwaat ci domaine boobu alors que ñoom ñoo ko créé y a un gap qui s'est créé. Mhm. am na lu tax ñu tey ñu jógee ci. Euh, Euh, aw na genre ku kaye dara ba ñëw nekk euh, une euh, utilisatrice hmm. bañ a gestu lu jëm ci affaire programmation wala jëm ci affaire de technologie hmm. donc moi je me suis dit que y forcément hmm, des raisons donc j'ai u à cible quelques d'abord je me suis dit les mariages précoces c'est un un point phare bu tax ba bu jigéen ñu bëri xaw a am recul par rapport à ça tey par exemple au niveau de, du rapport de ONU Femmes mm-hmm. au niveau même du ODD 5 c'est mhm. l'ODD propice au, à l'égalité des sexes mm-hmm. il est mentionné que un sur cinq femmes sont mariées entre 19 et 24 ans donc ku marié âge boobu suñu suñu moroom lay nekk mhm. donc tu as les responsabilités de famille war a gérer sa jëkkër war a gérer foyer sachant que société bi dañu lay forcer ni la femme femme au foyer ah nga war a liggéey toppatoo sa jëkkër toppatoo sa belle famille. Mm-hmm. toppatoo sa famille donc tu es à stade où yow sax dootal sa bopp. tu boo beaucoup plus du domaine ménage bi voilà tu es focus sur ça parce que mm-hmm. âge bu ñu la jël pour nga dugg ci néegu say moo teel je me dis mm-hmm. dafa teel voilà il y a des gens yi nga xamante ne ils sont pas instruits donc encore pire dañ leen di naan waaw waroo dem liggéey da nga war a toppatoo kër gi waroo génn femme au foyer dem ba jàpp loolu foog ni mooy yoon alors que c'est c'est parce ce qui doit euh, être fait donc l'autre point c'est qu'il y plus d'hommes que de femmes donc euh, pour ñu am même capacité góor liggéey ci dara en même temps jigéen liggéey ci je me dis bu ñu jàppalee benn góor wala ñu jàppale ñaar ba ñetti jigéen pour que égalité de sexe bi nga xamante ne ñu ngi koy prôné mu mën a ñu mën fa jàppale benn góor jàppale benn jigéen forcément il y aura toujours un gap parce qu'il y pas autant d'hommes que de femmes <laughs> au niveau du oui, monde <laughs> donc euh, après euh, au niveau éducation comme euh, Bigela euh, tantôt dit euh, nous n'avions pas beaucoup d'éducation numérique que ce soit ku instruire jàng am kii peut-être ñu nekk ci domaine informatique bi wala nekk ci domaine science ils auront à peut-être euh, effleurer cela parce que di def ay recherche di nga impliqué wu par rapport à ça mm-hmm. mais euh, beaucoup ne sont pas tournés vers le net peut-être day am benn affaire bu bees ñëpp dugg ci comme genre TikTok génn na am na mm-hmm. contenu vidéo ñëpp dugal contenu sans pourtant même comprendre l'algorithme mm-hmm. parce que euh, réseaux sociaux bu nekk am na ñu muy donc le fait boo waree programmer dañoo expérimenter même su fekkee bëriwul programmation àndul ak distraction tey da nga war a focus parce que benn point virgule boo remplacer ak benn virgule dalay defar erreur nga nekk fa di wër erreur bi mhm. sa xel bu dalul nga war a am ay priorités yi nga war a gérer au niveau du foyer sa euh, côté financièrement social demee wul noonu mhm. doo mun concentrer par exemple benn journée entière da ngay ko def doo ko tal war ngaa ne da ngay dugg sa réseaux sociaux yi des fois pour def telle ou chose sachant que yaa ngi am peut-être benn liir bu ndaw à côté bi nga mm. nar a kii donc va falloir manager le temps sensibiliser pour manager le temps mm. manager monétiser le les les certaines heures mm. tey organisation rek la laaj ah nga am euh, tout une journée nga war def ay corvée y a pas de mais boo amoon benn 30 minutes mën nga dugg ci réseaux sociaux yi. am na kuy jaay na tu tu tu récupères et tu vends tu gagnes en fait. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on appelle, je pense, le fait de monétiser le temps. Mm-hmm. Parce que instant yi bon le temps c'est de l'argent <laughs> comme on dit ah. Mm-hmm. amatuñu temps à perdre ku nekk mu ngi jéem a yëngu ci dara. donc euh, voilà. Il y a des avantages aussi qui sont propices à la femme. tey je me dis euh, TikTok par exemple wala beneen réseaux sociaux ku ko créer je pense que day viser à toucher le fond des sentiments tey. cible boo ko bëggee atteindre il faut nga toucher ko il faut mu gis ci boppam. Mm. donc euh, pour que nit ki mën a gis boppam si dara fa nga comprendre loolu muy fonctionner donc euh, boo xoolee contenu yu bari jigéen ñoo koy gën a def. Mm-hmm. vidéo yi TikTok en boucle jigéen nga gën a gis ko mm-hmm. góor. donc côté sentimental je me dis euh, la femme elle est beaucoup plus propice. Mm-hmm. te internet je pense c'est un truc virtuelle la on voit pas la personne en tant que telle physiquement mm-hmm. mun na mel neneen avec les euh, retouches et tout mm-hmm. doo ko xam mais euh, une femme peut jouer beaucoup plus le rôle de sentimental bi que que góor mm-hmm. donc on a cette plus-value c'est une chose je vous dis à promouvoir nga xam te mu nekk nga fësal ba nga xamante ne euh, gap boobu noo ñu am on peut combler ça avec ça mun nañ gérer ay contenu côté digital instruire gestu côté community manager par exemple xool contenu voilà am nañ ouverture d'esprit boobu te je me dis que c'est pas un truc compliqué. Mmh. nit yi mën juste bàyyi xel après sensibiliser aux besoins. Mmh. Euh, y a des métiers qui se créent avec le digital. Mmh. on est à une ère di ère numérique vingt et unième siècle bi c'est l'ère de la digitalisation tout est numérique tout est euh, voilà au niveau euh, technologie. donc boo ci amul aspect bu la ci yeewul rek après tu doo ànd ak jamono. la <laughs> doo ànd ak jamono. yow daa mel ni yow yaa <laughs> <laughs> wax nga ko léegi nee nga tout numérique te bëri na tamit yoo xamante ne jot nañ ko développé te ay jigéen ci boppam. Mhm. ñoom ñoo développé des logiciels ainsi que des sites. alors est ce que yéen tamit yéen a ngi détaillé seen liggéey maanaam lu jëm ci wàllu mode di ko def ci sit euh, site yi également pour euh, plus de visibilité. effectivement on est au niveau de tous les réseaux que ce soit TikTok TikTok, Facebook, Instagram, même LinkedIn, hein, même si c'est professionnel. Mm -hmm. Mais nous y sommes, du contenu. Mm-hmm. Ni ngay manager contenu bi rek mooy changer d'un réseau à un autre. Mm-hmm. TikTok tey visibilité bi c'est beaucoup plus focus sur vidéo. Mm-hmm. LinkedIn c'est pas le cas. Tu tu rends un truc beaucoup plus euh, visible Va falloir euh, créer un contenu aussi. voilà, un contenu propice. Mais pour am je veux dire. On a notre que... site à nous. de, avec votre marque et tout. Effectivement, on a notre site à nous, ñu ngi conceptualiser le site mm. est prêt on est en train de mettre les produits mm. on va bientôt véhiculer l'information par rapport au lancement d'accord très très bientôt <laughs> euh, donc voilà <laughs> gëstu nañ ko chargé de com est euh, juste à côté ah mm-hmm. Badou <laughs> ñu jàll rapidement heure bi léegi mu jot ci uh-huh. euh, ci Eli Eli tey yow réseaux sociaux yi fan la la yóbbu ak question boo xam ne bëggoon naa defaat tour de table bu ci xajee. Mhm. tey euh, jigéen ñi euh, ñoom ñoo gën a présente sur les réseaux sociaux. Mhm. mais est-ce que aussi euh, Bigué junj na ko sànq yenn contenu aussi aussi lu ñu war a ñaawlu la. parce que mhm, effectivement c'est pas du lépp lu nice la jigéen ñi di publier surtout TikTok. alors dañoo nekk ci ère boo xam ne aire digitale la. surtout euh, contenu yi jigéen yi ñoo koy gën a def. Mm-hmm. Euh, man damay lancer message jigéen ñi lu ñuy def ci internet bi dañ ko war a xool. Mm-hmm. parce que internet dafa doon loo xam ne loo ci dugal fii lay des. surtout mm-hmm. au niveau de TikTok. du dem dogguma la sax bu yàgg gis naa benn <laughs> vidéo koo ne dañoo dem ñaani ko. mais ba ñu euh, xoolee ah, vidéo TikTok ñëwoon ñaan si ko dañoo jug ñibbi. <laughs> effectivement <laughs> internet dafa doon loo xam ne mën nañ ci liggéey lu bëri bëri dans le bon sens. au fait forma euh, dañoo dañoo wax di formé wu au fait. Mhm. marketing digital digital baa ngi fii dañoo wax euh, di formé wu comme ça nga ñu mën mën a xam voilà nga mën a mhm. xam ni ngay utiliser réseaux sociaux yi nga mën di di ci def sa commerce di ci jaay dans les normes mhm. doo déraper moo tax formation bi c'est très très important képp ku bëgg a jaay ci internet bi foog nga formé wu en marketing digital ak yeneen ak yeneen kii euh, formation lu jëm ci internet bi c'est très très important parce que dañoo dañoo nekk ère boo xam ne soo bëggee jaay moom il foog nga nekk ci réseaux sociaux yi moo raw télé rajo yi merci <laughs> ah non mais mënuñoo xaar télé yeeg rajo yi sax bu fekkee ne da ngay obligé fay xaalis voilà pour ñu defal lu publicité day cher hmm, te pour un début day xaw a compliqué sa hmm. fait que réseaux sociaux yi la am pour mën a véhiculer suñuy produits euh, di di véhiculer euh, message yoo xam ne dina mën a jëriñ ñeneen ñi c'est hmm. très très important maanaam lu ñu ci mën lu ñu ci mën a def de côté côté positif bëri na alors que ñuy utiliser internet bi ci côté boobu noonu lañ ko war a utiliser surtout au niveau maa ngi maa ngi gis soo xoolee xoolal ci niveau TikTok bi actuellement seen euh, yenn sénégalais yi nuñ nuñ ciy nuñ ciy defee loo xam ne dafay ñaaw au fait ba mm-hmm. ñëpp di ko déplorer mm-hmm. c'est vraiment dommage mën nañ ci def loo xam ne vraiment dina jëriñ askan wi yëpp. Mm-hmm. nga xam ne monde bi yëpp dinañu dinañ xam ne Sénégal ñii lu ñuy def ci TikTok bi. c'est kii na baax na et tout mais am na ñoo xam ne vraiment ñoo ngi ciy liggéey loo xam ne c'est vraiment. déplorable côté aspect négatif voilà aspect négatif bi voilà juste nit yi gën a xam ne internet dañ ko dañ cee dañ ko war a utiliser positif utiliser positivement mm-hmm. di ci di ci di ci di ci euh, da ci publier loo xam ne dafa war a jëriñ askan wi ñu bàyyi lépp loo xam ne côté négatif la. Hmm. ñu bañ ko di ko def ci internet bi en tout cas voilà. Hmm, hmm. Bigué ma ñëwaat si yow euh, rapidement euh, quelque une minute rek nga tënk ko <laughs> euh, mooy li mu wax rek aspect négatif surtout jigéen ñi ne ñoo ci gën a fës ay vidéo obscène yi nga xam ne ñu koy publier surtout ci TikTok bi loolu la di alors. <laughs> surtout l'accessibilité des filles elle a une fille également boo xamante ne xale bi sob na sob boo xamante ne day dugg TikTok. Euh, mais en fait voilà euh, day dugg fépp man par exemple tey bu mhm. fekkee ne yaay nga. da nga am mhm. doom. Mhm. il faut que sa doom ni muy utiliser tablette am nga nga nga encadré ko. man sama doom amul TikTok. amul Snapchat. ça c'est un choix. ça c'est important d'ailleurs sa tablette il l'utilise pendant le donc man dinaa encadré même en termes de dessin animé je me. Euh, en fait je m'intéresse au contenu qu'elle regarde. Mhm. parce que même dans les dessins animés y a des choses que man bëgguma bokk sama doom bu gis. ah parce que da gis ay yaay yu bàyyi ay mhm. TikTok ak lépp. Mhm. xale bi di ci accès alors que ça peut man par exemple loolu. bëgguma ko mais par exemple ñi nga xam ne ñu ngi koy def du ma leen du leen juger parce que li nga xam ne écart la ci man mën na bañ a doon écart ci nit. am na koo xam ne tey peut-être mi ngi exposer doomam wala doomam mi ngi utiliser TikTok peut-être que fu mu toog mi ngi waxtaan ak moom. di xaw ma ñoom ñaar ñu dundee donc du ma toog fii aussi ma ne non non elle ne devrait pas parce que xaw ma xaw ma nan la nan la dem nan la ak naka la mm-hmm. euh, tey am na koo xam ne xam nga Sénégal nag problème bi c'est quoi on aime juger les gens par rapport à leur port mm-hmm. vestimentaire mm-hmm. nit mën na di sol crop top sol short def vidéo wam Euh, taxul mu doon nit ku bon mm-hmm. mën nga bañ a rafetlu li mu sol yow mm-hmm. mais après il faut pas qu'on juge les gens par mm-hmm. rapport à loolu noonu soit baaxul wala lii la wala laa la du foofu pour man moi je refuse de juger ces femmes là parce que xaw ma lan moo nekk si ginnaaw am na nit boo xam ne tey internet moom divertissement rek la ciy wut Mm-hmm. kaf fooree mm-hmm. li muy def peut-être rombul sax ak moom buntu néegam mm-hmm. mais foofu lay gisee plaisir am xamuñu derrière ban charge psychologique moo nekk ci moom peut-être que ne moment boobu rek mooy moment de divertissement am jeex na donc moi je refuse en fait de juger ces femmes là mais nag dans internet comme on dit il a du bon et il y du mauvais à de ku ci nekk nga jéem a xool lan nga ciy ut man pour man bu ñuy ñëw sur les ku nekk ak li muy ut y mhm. yoo xam ne dañuy ñëw pour reetaan comme man kaf ree moo leen fa yóbbu mhm. lu leen di reetaan loo fu ñu romb mhm. waaw mais am na ñoo xam ne da nga gis contenu boo xam ne ñoom da di énervé tey parce que bugguñu loolu peut-être bugguñu kaf boobu noonu wala dañuy gis ne da nga ñàkk fayda boo ci nekkee comme on comme on les les uns vous êtes pour pour certaines choses donc ku ci nekk ak li ngay ut ku ci nekk ak li nga xam ne moom moo la fa yóbbu mais man moom internet kaf réer ruube moo ma fa yóbbu. <laughs> maa fii kii utilise sa tablette j'essaie d'encadrer mm-hmm. man loolu moo ma yóbbu internet en fait j'apprends. Mm-hmm. j'apprends énormément mais xam naa su may jàng fan lay jàngee. Mm-hmm. même sur TikTok. on apprend il y qui s'appelle maîtresse Adeline. moi je la suis parce qu'elle fait beaucoup de choses sur les trucs euh, syntaxiques. les fautes grammaticales. dama abonné aussi moom. il a des gens qui font. Euh, sur de question de culture général mm-hmm. te te te te li ngeen xam application yi bu si nekk elles sont très intelligentes. Mm-hmm. parce que li ngay wër rek. lañ lay jox exactement li ngay wër moom lañ lay andil. bu mm-hmm. fekkee que ne yow kaf foo ree ruubekat nga commencé. exactement lan nga bëgg. loolu moom la moom moo lay andil. su fekkee que ne waxu seytaane moo la tax a jóg. cas bu am fii ba <laughs> Nigéria. comprendre nga bu fekkee da ngay wër cas comme man. cas bi bu dee Nigéria sax di nga dëkk cas yi. en fait bu fekkee que ne da ñëw pour jàng contenu mhm. bu am ci jàng. Mhm. TikTok alxuraan sax mi ngi fa. mais pour te montrer mhm. que am na ay aspect euh, positif comme am na aspect négatif. parce que tey jii ça dépend ci li nga bëgg dong. bu dee yow nga bëgg lu bon moom di fa gis lu bon. bu bëggee lu baax tamit di fa gis lu baax. parce que religion bi sax da ngay améliorer moom lañ lay andil. tey booy wër euh, jàng ñu àndal la jàng. Mhm. bu dee ne ay xasida la ñu. religion bi sax ci arrives à améliorer ta religion ay saaru alxuraan la ñu àndil la ko. lay tegal alxuraan xasida ne ay surat la yu ñu euh, en fait ay kii yu ñu la war a yoo war a yoo bëgg a jàng. bëgg mhm. ko. en fait bu fekkee ci application bi loolu ngay recherche loolu lañ lay gën a àndil hmm. mais su fekkee que ne da ngaa dugg di wër janaa bul yi lan la hmm. jotee ak waa Cameroun ba ñu koy xas ba mu hmm. jógee fa dem Côte d'Ivoire <laughs> mais bu subaa kaa ba ca Nigéria dañ la koy andil en tout cas nooy nooy nooy jullee sax ak alxuraan bi lépp di nga ko xam incha allah caankat yi heure bi euh, jot na euh, côté euh, aspect côté négatif bi surtout ci jigéen ñi à chaque fois dérive bu amee ce sont les femmes mm-hmm. yow loolu leen di wax man je me c'est juste conscientiser. parce que ñàkk xam rek euh, mooy indi yóbbu yenn nit yi ci yenn point yi. parce que nit ki bu xamee euh, lu mu mën a am ce que ce apporté de gagner comme euh, bénéfice wala plus-value en utilisant réseaux yooyu nga xamante ne mu ngi divertir wala mu ngi ciy def li nga xamante ne ñu ko ci laam-laamee ëllëg. je me que dina ko wàññi yoo xam ne su ko bàyyiwul parce que tamit y a des gens yoo xamante ne c'est ça leur routine dañuy créer ay contenu peut-être mu ñàng tey mais mu ngi leen di parce que quoi qu'on puisse dire la plupart du temps les gens qui ont beaucoup plus d'audience beaucoup plus de visibilité mooy ñi nga xamante ne def li nga xam euh, lu intéressé wu ñu bëri genre divertissement la wala def li nga xamante ay cas la comme elle a dit tantôt mhm. wala def li nga xamante ne euh, problématique lay indi en fait voilà juste pour euh, éveiller conscience yi mais on peut apprendre mhm. ku bëgg a jàng di nga jàng moteur de recherche la comme mhm. Google donc la plateforme quand on l'a Euh, algorithme am na lu mu définir mhm. li nga bëgg la lay indil tey boo <laughs> boo buggee benn cas comme elle l'a dit cas boobu la lay indilaat encore suba style mhm. boobu boo duggee ci lu jëm si jàngu comment même TikTok fonctionne da la koy indi tey suum indi beneen approche bi nga xamante mën na la intéressé. TikTok est très intelligent. très très très intelligent je pense que après Google ah soriw ko. donc euh, il faut juste conscientiser éveiller les sur euh, peut-être yeewuñu koy def peut-être malgré parce que ku nekk ak sa problématique ak sa <laughs> contexte bi ngay dund tou tout ça peut aussi en faveur ou en défaveur de de tes euh, de te propos wala te actes aussi. Mm-hmm. voilà d'accord Euh, soo amul question ñu mm-hmm. mm-hmm. euh, temps. lu neex du doy dafa gaaw kay lu neex comme euh, man damay tàggatoo rek donc di mm-hmm. jaajëfal suñu téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi également mais surtout suñu invité yu yànj yi nga xamante ne ñëw nañ toog vraiment. <laughs> fësal wone ne tey jigéen ñi ñoo aye donc di leen remercier et di wax rek bonne fête à toutes les femmes. waa di euh, tàggatoo di remercier ñu ñu doon seetaan euh, man damay remercier ñi ñi may ñi may jàppale ci sama liggéey di remercier samay clientèle nga xam ne depuis le début ñoo ngi jàpp. Mm-hmm. di ma encourager di vraiment di. kontaan ci liggéey bi may def. Mm-hmm. alors di leen remercier bu baax a baax di leen souhaiter bonne fête de la femme. Mm-hmm. Euh, di remercier tout le monde rek di leen remercier yéen ci invitation bi. kontaan naa ci trop. d'accord Bigué. alors euh, maa ngi leen di remercier bu baax ci ci invitation bi ma sànni leen xeer ci bàyyi bonne fête bi <laughs> tey la journée pour faire le point sur les mm. luttes menées par les femmes mm. dañu toog ñu xalaataat fan na ñu toll ci li nga mm. xam ne moom la ñuy wut ci li nga xam ne tey xañ nañ ñu ko alors que war nañu ko am c'est c'est important qu'on fasse ce point la merci beaucoup merci de l'invitation vraiment voilà je vais rebondir sur lu mu parler mooy journée bi tey c' bien beau de fête souhaiter bonne fête mais aussi va falloir conscientiser sur euh, mm-hmm. l'idéologie même de cette journée parce que c' la journée des droits de la femme donc va aussi comme lu mu wax yee jigéen sur des choses nga xamante ne peut-être am nañ ci wàccuwaay mm-hmm. war nañ leen ci wax li nga xamante ne moomee nañ ko mais euh, dañ leen ci bàyyi ci biir rafet parce que gëstu ñu ñu jiital góor yi jigéen ñi waxuñu ne ah garaawul comme jigéen la amul problème mm-hmm. donc continuer capital bi mieux valoriser l'entrepreneuriat féminin parce que bëriwuñu mais euh, ñi entreprendre côté jigéen donc euh, fësal ko doonul lu yomb mais mooy tax tey égalité des sexes bu ñuy prôné ñu mun ci egg hmm. voilà va falloir promouvoir tout cela en l'occurrence de la femme merci beaucoup mesdames euh, maa leen di remercier ah c'est dama déborde tey vraiment di jégaluwaat rek pour loolu di gërëm bu baax Elisabeth Dior Dieng cosmétologue borom Eno eh, Beauty cosmétique Anne Catherine Dione eh, borom Glowax ak la présidente de l' association de la critique cinématographique critique cinéma mi ngi am ak critique littéraire critique littéraire ama amatul. dégg y a d'ailleurs une fédération africaine des des mm. critiques de cinéma. il faudrait juste ah, suivre. <laughs> je vous rassure. en tout cas ñu leen di gërëm bu baax. Mm. yow it euh, ma lay remercier ci euh, co-animation bi di gërëm euh, Malick Faye ak Bachir Cissé ñu nekk ci régie bi mbokk yi di leen jox dig daje mercredi prochain. yéen jigéen ñi nañ leen di leen sargal. yéen jigéen ñi ni nañ leen yónni te di leen sargal yéen leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi ni nañ